image yi di fësal lenn ci infrastructure sportive yi ñuy jëmmal fii ci Diamniadio terrain d'entraînement ànd ak piste athlétisme di terrain annexe bu stade maître Abdoulaye Wade ngeen di gis noonu liggéey bi daanaka yemb na. fii ñu mën fee xaarandi ay séance d'entraînement bu équipe nationale bu Sénégal war a jongante ak Égypte 29 mars ñeel barage coupe du monde Qatar 2022. balay boobu liggéey bi di wéy SOGIP di société bi yor lépp lu jëm ci wàllu infrastructure publique yi fare fii ci jam Diamniadio ànd ak turki yi ak sénégalais yi ngeen di gis noonu ñu nekk ci réglage yu mujj yi tribune bi liggéey bi yegg na parking bi ñuy gaare woto yi ak pelouse bi naka noonu mu mel ne mur de cloture bi moo des ci liggéey bi